allah c'est bon moom maa ngi lay. maa ngi la nañ la Sénégal mais maa leen raw maa leen raw. non moo damay laaj benn question moo kañ ngay ñëw euh, wax dëgg yàlla nag euh, xam naa ne ñu ngi pare lamb bu mag euh, Sénégal donc xam naa lamb bu ñu tëgg nag dinaa ko bëgg naa ko bëgg naa ko bëgg fekkee parce que foog foog dugg arène nationale. tey bi nga ñëwee ci Bamba Day bi gannaaw deux ans xam ne am. lépp sëñ Touba franchement di am mbégte bu mag di am mbégte bu mag. Euh, euh, gis nañu tey unité sénégalaise bi gis nañu gis nañ fi maanaam xeet façon xeet bu ne tubaab yeeg maanaam gis nañ fi lépp donc maanaam kàddu bi mënul gudd mais maanaam lu ñu lu ñu maanaam mbégte mbégte rek suñu xol moo fees wax dëgg yàlla ak mbégte yaa def na ci vingt cinq mille dollars di loo xam ne murid yëpp dañ koy rafet waaw loolu yëpp ci liggéeyam sëñ bi la rek loolu ci liggéeyam sëñ bi la sëñ Tuubaa xam daf ñoo sas donc maanaam ñuy liggéey rek mhm. non xanaa di leen woo rek di leen woo ci liggéey bi rek you know di leen woo ci liggéey bi rek ñu gën a ñu gën a góorgóorlu te tamit ñu leen gën a ñaax tamit di leen gën a encouragé parce que sénégalais yi nekk diaspora bi dëkk fi franchement jàmbaar